إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين عباد الله قال تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون يحرص المسلم على معرفة أوامر الثبات على دين الله ذلك لأن الثبات على دين الله حتى الممات هو ثمرة الهداية وهو دمان بإذن الله للحصول على الجنة والمغفرة قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم القيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا وقد حكم الله بكفر الذين يقبلون بعد الكتاب ويرفضون بعدا آخر فقال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل أما تعملون وقال تعالى وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة mbokk jullit yi ñu ngi sant sunu boroom ci xéewalam yi ñu xam ca yañ xamul moo ko ëpp ñi ngi koy jéggulu di ko ñaan mu yërëm ñu di ko ñaan mu julli sunu yeneen te ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nekkoon xéewal gi gën a mag gi nga xam ne yónnee na ko ay jaamam yal na yàlla subhanahu wa taala julli ci moom ak njabootam ak ñi ko nangoo roy ba baa bis penc di taxaw su dee loolu paase na mbokk jullit sunu borom yàlla def ne sama yoon a ngi nii de nekk yoon bu jub kocc ey yéen nit ñi topp leen ko ca bu leen topp ñall yi ndax da leen di teqaleeg yoon wu màgg woowu lii day maa ngi leen ciy ñaax ngiree ngeen am ak ragal yàlla ñi ngi jóg di dox jëm sunu boroom ñun ñépp sunu dund fa la ñu jëme boroom boobu nag dafa am diineem ji nga xam ne moom mooy siraatal mustaqim ne ngalla waay yéen nit ñi topp leen ci loolee bokk na la ko wër ci ni ko sunu yonent alayhi salaatu wasalaam melale moo di ne ne da ngay gis ne yoon wi lu jege téeméeri bunt am na ci bunt bu nekk am na loo xam ne nii benn seytaana ma nga te nekk di woote ngiree wàcc nit ñi ci yoonu yàlla loolu moo tax ba yow julit war ngaa xam ne sa itte bi gën a rëy nan ngay def ba jàll yoon boobu ba traversé bunt yooyu ca doo ci jàdd ci benn ba baa ngay yegg sa ngërëmal boroom yal na yàlla defal ñu loolu loolu rekk mbokk sax ci yoonu yàlla ba dee fekk la ca loolu mooy garantie bu màgg bii tax nga yeyoo tabbi aljanna bii tax nga yeyoo ngërëmal yàlla moom la borom bi ne jaamul sa boroom ba baa yaqiin di la dikkal wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al yaqiin yaqin boobu moom mooy dee loolu mooy wàccu liggéey yi jullit moo di ne ne doon nga koo xam ne ko faatu loolu nag mbokk jullit yoon woowu nga nekk xamal ne ay natt yi ci nekk bari na lool natt ya dana doon loo xam ne ay desal lay doon ca léeg-léeg du dëppoog sa bànneexu bakkan léeg-léeg mu doon ay tere tere yoo xam ne daa dëppoog sa bànneexu bakkan nga gis ci intérêt bu teew waaye déglul sa waxi boroom subhanahu wa taala sunu boroom nee na yellul ñeel benn julit bu góor bu bu ca yemoon rek ñu mën caa déggaale julit ñu jigéen ñi yellul benn julit bu góor wala benn julit bu jigéen yàlla tëral mbir wala yonent yàlla tëral mbir gannaaw ba ñu am lu ñuy tànn ci seen mbir ndax ku mooy yàlla ak yonent bi day sànk nga sànk gu sore sori loolu mbokk sunu boroom waxul sax ñu mooy ay ndigalam waaye ñu hésité rek la wax mooy sikk sàkk ci ay ndigalam sax loolu réer gu màgg la heure boo xamee ne yàlla indi na mbir ne def leen a rasul sallallahu alayhi wa sallam indi ne def leen la ca tegu rek mooy dégg naa topp naa yàlla ne bàyyi leen sunna yonent ne bàyyi leen yow góor yi wala jigéen la ca topp rek mooy dégg naa topp naa looloo tax sunu borom atte na ci lenn ci ay jaamam yi nga xam ne diineem ji dañ caa tànn la dëppoog seen bànneexu bakkan di ca sonn lool di ca jëfe lool amaa la ca safaanoog seen bànneexu bakkan ñu sànni ko sunu borom mu ne waaw andax léegi sama téere bi da ngeen di seet la leen ci neex ngeen jël la leen ci naqari ngeen bàyyi xanaa xamu leen lan mooy payu ko def loolu borom bi ne payu ko def loolu day mooy danaa ko toroxal àdduna yowmal qiyaamati ma yóbbu ko ci mbugal gi gën a tar nga la way julit xoolal sa bopp xoolal ndax amul lenn ci santaane yàlla loo bañ tey yéen jeunes yi nga xam ne nii ay intellectuel lañ leen di tuddee bokk na natt bu rëy mooy nangu nañoo julli nangu nañu woor nangu nañu aj màkka mais koo ci waxal ba tudd li nga xam ne mooy attey lislaam nga gis dagg sante ba daal di commencé sunu borom mi tëral alxudud ku rey nañ ko rey ku sàcc nañ dagg loxoom ku njaaloo nañ ko duma wala nañ ko rey loola di nga gis lu bari ci intellectuel yi nekk lu dugg seen xol am na ci ñu bari la yàlla tëral ci miraas ne góor na jël ñaar jigéen jël benn duggul seen xol la yàlla tëral ci ne jigéen daa war a muur awraam kenn warul gis ci moom lu dul la yàlla daganal ci moom ñu bari nanguwuñ ko tey mbokk loolu musiba nag mënul paase loolu sunu yeneen si sallallahu alayhi wa sallam day borom bi nee na lépp lum leen indil jël leen waaye lépp lum leen tere bàyyi leen loolu mbokk moom mooy diine lislaam mooy diine lislaam bi nga xamee ne nii yàlla subhanahu wa taala tënk na ko ci alquran tënk na ko ci sunna donte ne bokk na ci sunna yonent bi mooy sunna xulafaa rachidin ña nga xamee ne uwute wuñu ak moom lu toll ne bën bënu pusa abu bakar omar usman ak ali moom la yonent bi ne woon mooy leen ci matt leen ko bu leen ko wàcc moytu leen lépp loo xam ne sos nañ ko gannaaw ñooñu loolee ak réer la ku ca jaar da nga doon ñoo xam ne ni ñu réer ku réer ngay doon loolu moo tax ba mbokk julit nañu góorgóorlu sunu kemtalal kàttan jéem a xool nu ñu def ba xam alquran ak sunna nañ góorgóorlu suñu kéemtaleel kattan jéem a xool nu ñuy jéem a jëfe loolu doonte ne jëfe loolu nag mbokk xel mu rafet du ca doy abadan doomu aadama fokk nga jege boroom xam-xam yi loolu moo nekkoon cosaanu lislaam doonte ne boroom xam-xam yooyu mujj nañ ko yàq tudde leen ay sëriñ mooy man diw mooy sama sëriñ sëriñ boo xam ne nii mën na am yow musoo ko sax gis wala sëriñ boo xam ne benn yoon ci at mi da nga ko ziyaara jël awla bu dun jox ko mu ñaanal la nga dem nga jàpp ne loolu mooy sëriñ bi nga xam ne adduna dana la mën a gindi gindi alaxira mu jàpp sa loxo tabbal la aljanna mbokk riir munta paase loolu ab sëriñ munta ñàkk te sëriñ mooy borom xam-xam bi nga xam ne yow julit da nga koy jege lépp loo xam ne réer na la sa diine nga ñëw laaj ko ko mu teg la ca yoon ba nga xam ne moom la yàlla ak yonent yàlla subhanahu wa taala gërëm loole da ngay gis na benn ci magi kaw kaw yi ñëw na ci ali ibn abi talib radiyallahu anhu laaj ko ay laaj yu jëm ci wàllu dogal nga xam ne ci gën a lënt ci diine ca la bokk mooy diggante dogalu yàlla ak sabablu bi jaam yi di def ali ibn ibn abi talib leeralal ko gën jaa màgg ci leeral mu daal di jóg taxaw daal di na ko yow day anta al imaamu lazi narju bi taatihi yowma alxisaabi min allahi gufraana أودهت من ديننا ما كان ملتبسا فجزاك الله عن الإحسان إحسانا نكو تي علي يو دي ياسون إمام بيغا خمني نيغي ياكار تي توب غين لي توب ني سوني ديمي يالا دالا نيو بال سوني بكار تابال ني الجنة ألو تخ ndax dañoo bokk ci mbooloom rek di ko bayal ay tool rek di ko jox ay enveloppe rek bu ñuy ñaan ñaan ci turam rek déedéet mu ne ko yow yaa leeral ci suñu diine ji lépp loo xam ne lëntoon na ci kon yal na la yàlla fay ci mbaax gi ñu defal ak mbaax mbokk loolu mooy sëriñ mooy koo xam ne day leeral lépp lu lënt sa diine di la teete di la jàngal la yàlla ak yonentam bëgg waaye di la tere lépp loo xam ne yàlla ak yonentam dañ koo bañ ku mel nii de boo ko toppee da nga tabbi aljanna ci sababam loolu moo taxoon sunu borom di wax yonent bi wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim yow de yaa ngi jubale jëme ca yoon ba nga xam ne mooy yoon bu jub gannaaw ba mu ko waxee ne innaka la tahdi man ahbabta ne ko munoo jubal ku la soob te mooy njub yi ñaar la jub gu jëkk gi yàlla rek a ko man mooy yàlla dëppale la wëlbati sa xol nga bëgg a jub waaye gannaaw loolu nag loo bëgg bëgg bëgg jub fokk nga dem ci koo xam ne dalaa jàngal nu ñuy jube kooku na doon ab yonent la wala ñu koy muy tànq ci ab yonent nga tudd ko aalim wala tudd ko sëriñ wala murabbi wala noo ko mën a tudde yaa xam waaye na fekk rek ne du la wax lu dul qaala allahu qaala rasulullah mbokk julit doomu aadama bi soo bëggee sax ci la nga xamee ne mooy diine ba dee fekk la ca xamal ne fokk nga xool ana ñan ñooy àndal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane almaru ala diini xalilihi falyanzur ahadukum man yuxaalil nit ki yaa ngi nekk sa diine yi xarit yi ngay àndal ku ne na xool kan lay àndandool su bëggee jub foog naa lu jege téeméeri yoon dégg ngeen waa dara yoon juróom-ñeen fukki bakkan ak juróom-ñeent bal rey sax téeméeri bakkan borom xam-xam ba ko doon laay biir lu mu ko wax dëkk bii nga nekk ñu baax nekku fi demal dëkk sàngam nga ànd ak ñoom jaamu yàlla loolee ba muy dem ca yoon ba ca faatu malaaka yërmaande yeeg mbugal yi jëkko jëkkante ko sunu borom dana xool leen ban dëkk la gën a jege ndax ñu bon ñi la gën a jege yóbbu leen sawara ndax ñu baax yi la gën a jege yóbbu leen aljanna yàlla dogal mu gën a jege ñu baax ña lool it xoolal ña ngay àndal sunu borom nee na alaxillaau yowma idin baaduhum li baadin aduwun illa almuttaqin ña nga xam ne ñoo nekkoon xariti doomu ndey lu metti kenn metti ka ca des luy bànneexu kenn di bànneexu ka ca des su dee xaritoo ga teguñu ko ci ragal yàlla yowmal qiyaama noonu ya gën a màgg la ñuy doon loolu kon ku ne war cee bàyyi xel mboolem lang yi dëppoo nañ ci ni nit ki boo koy laaj jarul nga koy laaj laajal rek xaritam soo xisee ba xam xaritam rek da nga xam lan mooy jukkoom mi ngi noonu loolu itamit bokk na mbokk julit la lay dimbali ba nga mën a sax ci diine yàlla ji mooy nga fexe ba adduna bañ laa wor ñi ngi ci zaman boo xam ne ñi jiite adduna bi tey mooy yéeféer yi ñi ci ëppale tey ci noos mooy naafiq yi loolu nag yow rawatina yow ndawal julit sunu borom mu ne laa yahurrannaka taqallubu lazina kafaru fi lbilad mataaun qalilun summa mawaahum jahannam wa bi'sa almihaad ey waay bu mu la wor la nga xamee ni nii moom mooy wëlbatikuk yéeféer yi ci biir dëkk yi di mën a dem voyage de noces fu mu leen neexe di mën a yóbbu seeni doom fu mu leen neexe ñu jàngi fa di mën a yëkkati ay immeuble di dawal oto yi leen neex loolee da ngay gis tax na sànq ne diine yi ñu bari ci nit yi tey nit yi tey da ngay gis ay jigéen ñu àtt na tëj seen kër bàyyi fa seen njaboot ndax dañuy wuti lu ñu lekk ndax dañuy wuti lu ñu woddoo la wallahi lekk gi doy na kodday gi doy na waaye lan mooy gis naa jigéen ñi di tukki damaa war a tukki gis naa nit ñi am ay visa ki passeport dama ko war a am dama war a am ay millions comme góor ñi góor ñi am nañu kër damaa war a am sama këru bopp damaa war a am sama oto bopp mbokk lii da ngay gis na mooy musiba yi nga xam ne la gën a bari lu yàq dini nit ñi tey loolu ca la bokk na nga góorgóorlu boo bëggee sax ci diine yàlla ji fàttalikul bis bi nga xam ne da nga daje ak sa borom borom bi moo ni wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an ilhawa fa inna aljannata hiya almawa koo xam ne ragal na bis mi ngi ñëw ñu daal di koy teete taxawal ko ci kanamu borom bi subhanahu wa taala daa di bàyyi bépp bànneexu adduna yu xaraam ya kii de àjjana way wàcc waayam loolu mbokk la gën a màgg ci li lay saxal ci diine yàlla ji ci la bokk waaye it xamal ne sunu borom yàlla moo ne ala bi zikrillahi tatma'innul qulub est-ce que du ci fàttaliku yàlla la xol yi di dale mbokk ab xol day wëlbatiku loolee la koy dalal mooy zikrullah zikrullah la ca gën a màgg it mooy julli sunu borom nee na inna salata tanha anil fahshai wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un xam leen ne julli day day tere nit ki mu def bépp bakkaar bu ñaaw bépp bakkaar bu jiggi dayoo ndax fàttaliku yàlla it xam leen ne mooy la gën a màgg yàlla xam ne li ngeen di jëf loola tax di fàttali fàttaliku yàlla ci julli waaye di fàttaliku yàlla foo mën a toll loolee day tax nga sax ala siratul mustaqim lii di fàtte yàlla subhanahu wa taala day tax seytaane yi dañ lay jege foo mën a toll ñu lay réeral ca yoon wu baax wa loolu la sunu borom wax ne wa man yaashu an zikri rahman nuqayid lahu sheytaanan fa huwa lahu qarin wa innahum la yasudduunahum an isabil wa yaxsabuuna annahum muhtadun lu sa xol gën a sàggan loo gën a sàggane zikrullah rawatina bokk ci ñi nga xam ne bu ñuy julli këpp këpp këpp ku mel noonu sheytaana mooy nekk àndandoom di ko jañ nànk-nànk yëgul ba daal di koy génne ci la nga xam ne mooy al istiqaama te mooy génne ko ci li nga xam ne mooy siraatul mustaqim loolu mbokk da ngay gis ne moom mooy yoon ya gën a màgg yi nga xam ne bépp julit bu ci bàyyi xel insha allah yàlla subhanahu wa taala dana ko teg ala siraatul mustaqim yal na yàlla subhanahu wa taala saxal ñu ala siraatin mustaqim alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تتغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون عباد الله الإسلام دين يدعو إلى الاستقامة ونهج سبلها والتمسك بآدابها ولم يفرق في دعوته هذه بين النبي وأمتي وينهى الإسلام عن التطرف ومجاوزة الحد فلا تفريط ولا إفراط في شؤون الدين والعبادة قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال تعالى قل إن إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فمن صار مستقيما في حياته سالكا طريق الخير يسر الله له كل أمر لأنه مطلع على كل شيء قال تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أيا بكجريت sunu borom yàlla mi ngi wax ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam ne ko jubal ci yoonu siraatal mustaqim ni ma la ko sante képp koo xam ne tuub na ànd ak yow ci lislaam na tege ci yoon wi ni ma leen ko sante bu leen doon ñuy jéggi dayoo maa ngi nekk di jàkkaarloog lépp lu ngeen koy def moytu leen jëng jëm ci ñi tooñ kon day sawara dana leen laal te du ngeen am gannaaw yàlla kenn ku leen di dimbali mbokk diine l'islam mi ngi nii mooy diine ji woote jëme ci correct jub te la nga xam ne mooy yoonu l'islam bu rafet bu màgg boobu waaye nga ngoy ci loolee ba ko yàlla waxee sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne bokk na li ma bijaawloo mooy suratu huud ak aay ak saar ya mel ne moom ca lu bari ci borom xam-xam yi dañ ne la tax mu bijaaw mooy la ko yàlla ne fastaqim kama umirta na nga jub ci yoon wi ni ma la ko sante ca maa ngi nekk di la surveiller yàq ñi gëm ànd ak yow loolee mbokk nekk lu ñàng lu mën a tiitloo nit da ngay xool tey homme de tenue yi ñu nekkal militaire la am lu mu mën a doon loolu la leen armée di sant mooy jub leen niñ leen ko sante dañ naan ne militaire bi bu dee ordre dafa jóge ci sa chef ñëw ordre bi lu mu garaaw garaaw lu mu dangereux dangereux yow dañ naan la def ko rek booy revendiquer nga doog a revendiquer mais bépp militaire boo xam ne dem na di revendiquer ordre bu ko chef am jox te defu ko kookee même bu amee dëgg armée da koy condamné loolu mbokk negam sunu structure caaxaan yi ñoo koy tëral ana nag borom asamaan ak suuf borom chef d'état major de tous les armées keneen yilif mooy kan mooy sunu borom jàlla wa ala loolu moo tax ba yow jullit it xamal ne da ngaa war a déggal sa borom nu raw ni ko militaire bi déggalee ca mooy li la yàlla subhanahu wa taala nga daal di koy san nga daal di koy def loolu lu mu lay jàngal mooy bul def loo xam ne yàlla santaanewu ko jéggi dayoo ci diineem ji loolu yàlla bëgg ko tey jii boo doon julli timis daal di koy def ñeenti rakka ñun ñëpp xam nañ rakka baax na ñun ñëpp xam nañ ko waaye nga def ko ñeenti rakka mboolem julli daal ñu wax sa julli gi baaxul lu tax baaxul mooy dañ koo paasale fa ko yàlla tëraloon mboole mi jaamu yàlla yëpp noonu la la yàlla tëral wuruñu ko yokk waaye ngal la waay mbokk julit xamal ne la yàlla tëralit wuruñu ko wàññi dañ caa war a def suñ kémtalal kattan sunu borom mu ne man yombal laa leen bëggal bëgg lu ma leen lenn loo xam ne ak jafeel la looloo tax ba yow julit sa pas-pas da ngay xool la ngay gëm mooy la yàlla gëmlu waaye say jukko da ngay jukko woo la yàlla bëgg ñu jukko woo ko sa jëflanteeg jaam yi da nga koy def na yàlla bëgg ñu defe ko loolu la ñu yàlla sant moo tax mu ne yonent bi alayhi salaam neel man de yàlla jubal na ma ilaa siraati mustaqim man maa ngi ci siraatal mustaqim loolu di chance bu rëy bu jullit ñi am mooy yàlla nee na ñu tege ala siraatal mustaqim ba pare jox ñu benn misaal nee na moom mi ngi ci kaw siraatal mustaqim muy sunu yonent muhammad alayhi salaam lan moo ñu dese moo ñu rey ko mu ne maa ngi siraatal mustaqim diina bu rafet bu jub boobu nga xam ne mooy yoonu ibrahim mi jengoon bépp shirk man day sama julli yépp sama rendi yépp sama dundu mboole seen bu ma yeewoo ba baa may nelawaat sama lépp sama dee maa ngi ko jagleel yàlla subhanahu wa taala fasiinu maa def lu dul lu neex yàlla bokkaale wu ma ko ak dara te pare naa nekk njëlbeeni ñu ko jébbalul mbokk lii mooy dogu boo xam ne jullit da ko war a dogu ca xam ne it intérêt fii la nekk sunu borom yàlla subhanahu wa taala képp ku dogu ci aw yoonum déggal ko ku mel noonu dana yëkkati say daraja dana la baal say bakkaar dana yombal say mbir moom la borom bi wax ne wa man yattaqi llaha yaj'al lahu maxraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ku déggal yàlla subhanahu wa taala dana la may génn waay sa xat-xat wërsëgal la foog a foogawul woon waaye mbokk yàlla bi mu ñuy wax ñu jub ci yoonam bi noonu la ñuy teree li nga xam ne mooy tooñ mu ne wala tarkanu ila lazina zalamu bu leen ànd ak ko tooñ xam ngeen loolu wax bu rëy la bul ànd ak ko tooñ ndax loolu mbokk yow boo tooñee luñ la war a def negam ki tooñ rek lañ la wax bul ànd ak moom wala tarkanu ila lazina zalamu yow nag boo tooñee luñ la war a def loolee ku ne ci ñun war na ci bàyyi xel looloo tax moytul ma tooñ xamal ne tooñ bi gën a màgg ci tooñ yi mooy tooñ sa boroom ci bokkaale ko inna shirka la zulmun azim moytul tooñ sa boroom ci def li mu xaraamal njabar ga riba ba ak lu mel noonu moytul tooñ sa boroom ci bàyyi ay ndigalam iblis mi ñuy ñaan yàlla musal ñi ci moom benn sujud la ko yàlla santoon mu bañ yàlla daal di koy dugal ci nga la nga xam ne mooy mbugalam waaye moytul tooñ yonent bi alayhi salaam nee na benn jigéen dana dem sawara ndax daa tooñ benn muus benn muus la tooñ tëj ko ci benn néeg ba mu dee loolu da koy tàbbal sawara moo ana yow mi tooñ sa moroomu nit même bu dee yéefér gaa yi julit du tooñ yéefér boo ko tooñee ak xam boobu yàlla dana la ko toppee waxumaa nag sa mbokk julit loolu moom da ngay gis ne lu jéggi dayo la gannaaw bu ab julit dafa war a di moytu boppam di ragal boppam mbaa wàcc mu yoon bi yonent bi alayhi salaam woon na husayfatul yam yamani daa di koy xamal lenn naafiq yi nekkoon madina omar mas na ko woo na ko husayfa maa ngi lay waatloo ci yàlla baa yonent bi boolewu ci sama tur mu ne ko déedéet waaye maa ngi waat ci yàlla ne gannaaw yow dootuma wax kenn ndax bokk na ca mbokk ci gaa yi nagam sahabatul kiram ñoo tolloon foofu di ragal maa waat ñu yoon bi moo ana yow mi dund quatorze siècle après ñoom loolu moo tax ba yonent bi daana ñu tiital ci ne xam leen ne àjjana day moo gën a jege kenn ci yéen mu doon dox ci yoon patt dàllam daal di dajjeeku waaye sawara it moo gën a jege kenn ci yéen doon dox ci yoon dàllam daal di dagg loolu muy wane ne juri da nga war a tiit ba baa ngay daje ak la nga xamee ni moom mooy sa boroom waaye bu la yàlla deferee tawfiq ba saxal la ci yoon boobu loolu day mbokk xéewal mënu koo paase sunu borom yàlla nee na yusabbitu llahu lazina amanu bil qawli saabiti fi lxayaati dunia wa fi laxira yàlla ku ko soob lay saxal ci yoon bi looloo tax mu faratal ci ñun fukki yoon ak juróom-ñaar ñu koy ñaan ihdina sirat al mustaqim ñaan googu bu la ko yàlla nangulee da lay saxal àdduna nga sax ci tawxid sax ci diineem waaye noonu it da lay saxale yowm alqiyaama fa jiitu ci place yowm alqiyaama mooy biir bàmmeel soo fa wàccee rek da ngay gis ne ay malaaka daan ñëw di la laaj ànd ak ñàngaay boo xam ne nit mënu leen a dékku waaye yàlla moo lay saxal nga tontu leen tontu ya gën a correct gannaaw ba itamit yàlla moo lay bégal sunu borom ne inna alladina qaalu rabbuna allahu summa istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaika alla taxaafu wala tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tuadun nahnu awliyaukum fi lxayati dunya wa fi laxira ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم sunu borom yàlla nee na ñi nga xam ne dañ ne ñun de yàlla mooy sunu borom gannaaw ba sax ci diine yàlla ji yokkuñu ci dara wàññiwuñ ci dara dugguñu ci ay bidaa dugguñ ci ay xuraafaat ba baa dee fekk leen ca bis bu ñuy dee malaaka yi ñoo ñëw teeru leen bëggal leen ne ñun dey ñoo nekkoon seeni xarit doonte ne xamoo ñu woon bëggal yow yàlla du la toroxal yàlla du la tiisal na sa xel dal ci njaboot gi nga bàyyi gannaaw na sa xel dal ci lépp loo bàyyi gannaaw xamal ne àddina moo lay xaar boo fa demee lépp loo xam ne bëgg nga ko da nga ko fa fekk ndax wàccuwaay la boo xam ne ka kay woote mooy kiy jéggale ak yërmande bégal googu julit bi saxoon ala siraatul mustaqim dana ko am heure bi muy dee dana ko am heure bu duggee bàmmeel dana ko am heure buy dekk yowmal qiyaama su ko yàlla xisaabe ba pare malaaka yi escorté ko ànd ak moom di ko bégal ba baa tabbal ko aljanna yal na yàlla boole ñu ci ñooñu yal na yàlla saxal sunu xol ala siratin mustaqim yal na yàlla saxal sunuy jëf ala siratin mustaqim yàlla bu yàlla wëlbati sunu xol gannaaw ba mu ñu jubalee اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده رب جبريل وميكائيل واسرافيل انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين